mooy bokkar yàgg génn leen génn leen hee yéen leen daal génn leen ñu lijjanti lii waaye dinaa jom mi ñëpp ko daw boobu la gëj pale bu mu fi génnee du duule mu tooy yooyu day day dikk Ndakaaru ci la gëj pale du du conseil des ministres duggatul ci avion génnatul ma nga toog biir këram di dayaka di dayaka alaabu ay waay jóg leen ñu lijjanti lii mu jeex waay wala ñu yee ñi dee ñu ñëw lijjanti ko wala ñu dem daaj ci kaso bi génne gaay jàmbaar yi ñëw lijjanti ko mille cinq cent détenus politiques matuñu ko sax wala ñooñu nañ leen dem libéré leen ñu génn ñu yéen laa ilaha illallah ay waay lii buñ buñ ko ñàkkee jeexal na waay waay li yéen caabu bu ne yàmbalang yàmbalang silib new fa dara new fa ñëwal rek dugg nga nekk fa taxaw ci kanam di mar dugal lillahi wa rasuli dara new fa amul silib amul dara yàmbalang la def la nga doon wër sur le plat mi ngi nii nii nii nga jàmmaarloo jàkkaarloo ak moom nii sa waay dugal ngay naka naan attends ma réfléchir xaaral ma réfléchir dugal ko ca dool fii nga naan attendre réfléchir ak arab mi ngi nii yàmbalang la def mi ngi nii caa boobu ne amul dara dara teewu ko dara empêché tu la pour nga dugg ca nga naan ay xaar ma ma réfléchir may ma tuuti ma xool nu ma ko nu ma ko waaye yéen dul ñëw da ngeen mësul jàppale. laa ilaaha yéen góor yi est-ce que jeexuñu Sénégal kaay leen doggali ko dee deew kaña ñu suuf koy birig ba mu sedd kese ngeen toog di xulle nga nii Sénégal amatul nguur c'est fini Macky Sall la ngi këram toog génnul yéeyul yàgg bu mu waxee ba léegi di recevoir rek tey jii war a jaaraat na fa ñun tam dañu am problème mu leader ko maa ngi gis ay leaders yi génn di ay waxaat conseil constitutionnel man daal dëkk bi daal man man dëkk bi. waaye lii dinañu raw ay waay occasion bi dinañu rëcc sur le plan sur le plan yàmbalang amul silip coqee sax wat nañ ko bàlleen ma àq sur le plan yàmbalang coq sax amu fa kaay rek nga taxaw jàmmaarloog moom naan ma mar ma macc ma xollu <laughs> waaye bii dootuñ ko amati waay Whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, mbaa kii kii mbaa yoomul moom it diggante boobu mbaa yoomu ca mbaa waa ji xërëmu ko ba mu yoom parce que lii moom mënul nekk moom lii kii bu dee góor la moom non non kii daa yoom non daa yoom non dañ ko takk dañ dañ ko takk mënul jógal y'a problème. ana Macky Sall kan moo leen jiite jamono ji kenn yàmbalan kenn jiitatu leen amatu leen gouvernement amatu leen conseil des ministres président bi gisutul premier ministre ba benn ministre yëpp a ngi ne salaw dëkk bi ne salaw dëkk bu lëmb <laughs> bii de buñ ko gañewul laa ilaha illallah Eh, bu mel nii waaye bu mel nii kañ lañ koy amati non occasion de bii bi buñ ko léegi le lion est blessé gravement blessé ma gis ñu am benn leader buy bind na ay dañuy ñu ngi xaar conseil constitutionnel man daal gis nga bàyyi leen gars yi di leen nalawloo am ngeen ay leaders yoo xam ne gis ngeen leadership yàlla moo koy def ci nit ñun ñëpp ay élèves lañ mais dafa dañoo yàgg nañ am ay leaders grévistes yoo xam ne bu ñu waxee ñëpp kontaan donc du ko élèves yëpp nekk leader de c'est pas sonk ñu mu jël ñëpp ay leaders lañ de déedéet da fekkee ma ci boole bëri na fa fekkee ma ci boole derrière Sonko c'est le désert derrière Sonko c'est Sonko est l'arbre qui cache la fore un leader charismatique bu mel ni Sonko ñëw taxaw di drainer les foules bëriwul bëriwu fa Sonko yàmbalang àll boo boo boo poussé Sonko àll ba yàmbalang la def kenn xamul la fa ne leadership da ngay mun a wax am verbe am caractère boo waxee yëpp dëgg ngay ngay drainer les foules am fit jiite ñun ñëpp de de nekk nañ école gis nañ les grévistes dañ doon fan ay grévistes yoo xam bu ñu génnee wax dëkk bi yëpp taxaw ñu nekk ci kanam di xeex c'est des meneurs des leaders mais ay leaders yoo xam ni ci derrière Ousmane Sonko c'est le total ay leaders yoo xam ni même benn discours bu taxaw bu dëgër nit nit yi defaraat ful yi taxawaat dëgëral taxaw jiite ay jo sax c'est un problème bu ñu yeewoo dina lawal nit yi ci ci ay ku la dàq publicité nag ñuy moo tax finalement combattant Pastef yëpp ay ay ay ay kii lañ ay facebooker lañ ku ci yow tar ko tarki ndaa tar ko nduut ndaa bu rek kii démb la te ne xam ne fii na xar mi jaar ay waay tay ñu rey la ay waay waay pacop di xaar sem ak ay laaj koy kan nga fi gën a xam situation yi kan ngay jàngal kan nga fi wax lu ñu xamul conseil constitutionnel bi ñuy jiiñ de corruption ñaari élément ñu nekk ci justice ñoom ñu nekk ci loxo yi ay ñoom orobondu ñu war leen atte fii ak six mois yow ngay toxu ba léegi dañu wax waxu conseil constitutionnel quoi naan c'est à eux de décider yow wér nga nga ne leader nga yow leaderu kan nga xanaa ko baaxul yow lii mooy sa taxawaay foule yi au front taxaw leen jàmmaarloo leen yee leen wax leen ne leen fii dara nekkatu fi àll bi yàmbalang na nañu dem nañ ko nangu nañ ko nangu taxaw naan ay non on attend que conséquence ci lan nga xaar kañ la ñuy génn loolu mooy leader loolu mooy leader Sonko dafa bëri ñu mu àndal ñoo xam ni Sonko moo leen yóbbaale leader parce que bëriwul leader ils n'ont de d'un du wax du verbe du dëggul fit du taxaw du dara tous ba ko duggee ci kaso ba léegi pour ñu dajale mille dix mille personnes sax c'est tout un problème même dix mille pacifiens pour ñu dajale leen c'est tout un problème te li am Pastef am ci ay combattants kenn amu ko Sénégal bu ñu demee bay jéem a xool sax nu ñuy demee jafandu ji ci ci ci waa pur nga xam ne y'a problème d'organisation da ngay gis ay pacifier lay wax waxu pur non nañ dem kii pur nañ xool pur jir nañ non mais ça va t'as oublié ta force kenn ëpp la force Sénégal barke alxuraan da nga amul leader bu la mun a dajale seen force yi da nga amul leader bu mun a capitaliser seen force seen énergie kenn kenn attanu leen ne benn doomu aadama attanul Pastef moo il faut que Ousmane Sonko génn il faut que Ousmane Sonko génn parce que s'il drainait les foules il rassemblait les gens il leur donnait ay discours guerriers de résistance mais y' a problème benn passé fii amul sax joxe ku ci nekk yaa ngi naan koo ci wax nag mu ne la dañ ko takkal buum buumu jaam. amatul fi wax discours résistance bu ñu yeewoo di wax ay wax conséquence constitutionnel ministre de l' ministre de la république ay kii kii kii di tonton tekkee mais lan moo leen wax ni eh sortez libérez Ousmane Sonko mais dans la mer résistance résistance résistance taxaw fu dëgër une patrie se compose de morts qui la fondent et des vivants qui la continuent Ousmane Sonko du ñu gën nday lan mooy dawi kaso luy dawi kaso. et le discours de la résistance bu ñu war a tenir ñun fu mu ne Macky Sall di conseil constitutionnel bi dafa am doole est-ce que xam nga ni décision bi Macky Sall jël waxtaan na ceeg Badio Camara kan mooy xaar conseil constitutionnel pour nalawal la Macky Sall avant moo jël décision bi woo na Badio Camara mu ñëw toog ñu d'accord ci ñi ñuy xaar xaarloo Badio Camara pourquoi lan la fi Badio Camara mën a def conseil conseil n'existe plus au Sénégal Macky Sall xaarul lu dul lii nga xam ne moo am ci assemblée nationale pour dissoudre leen mais Badio Camara daf fay des loolu rek lay xaar mënu leen dissoudre jamono jii dafa am lu ñu leen taqal ñaar ci ñoom. Macky Sall il attend pour l' instant gars yi def seen enquête parlementaire yooyu pour mun a teg ñaar ñooñu bu ñu lànkee mu dissoudre leen te lépp waxtaan na ceeg Badio Camara am ay espèce de leader yu leen bëgg a gëmloo ni xaar leen ay décision conseil non mais gars yi xeex leen nga leen nga ay xaar leen ay décision ay conseil constitutionnel chaque jour bu ñu waree taxaw xabtal gars yi ñu war a xeex am ñuy nalawaloon gars yi naan ay dellu leen xaar leen lii xaar luy lu ñu xaarati fii ba ba tey tey tey tey tey baajo Camara demaat na ci Macky Sall Badio Camara même tey tey mooy deuxième fois bu mu dem gisi ji Macky Sall waxtaanaat nañu Macky Sall bëggul gis keneen Badio Camara kese avant moo jël décision bii moom Badio Camara d' accord nañ ci ba suñ jonn yàlla tey woowaat na Badio Camara waxtaan ak moom d' accord nañ ci. conseil des conseil conseil constitutionnel la ñu xaar fii ak forfaiture bu Macky Sall def lépp luñ fi defoon mu xëpp ko ci suuf këpp yalwaan bi ndax ñu recommencer à zéro def lu garaaw ñi ngeen di gis nii ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp élection bu fi amoon duñ dem parenage bi da ko dindi parrainage bi mbedd mi parrainage citoyen amatul. parenage yu député ak parenage yu maire moo am parrainage yu député ak parrainage yu maire Anta Babacar Ngom bii di ñëw bokk amul fu muy jaar amul député amul maire xanaa moom mu neex donc bii di fi am nii sax Macky moo koy moo koy choisir ay député rek bu ñu leen boolee ñoom ñu diviser ko seeni maire ñoom mun nañ am nu mu dee dee dee quatre à cinq nit yoo xam ne dañuy dem ci présidentielle Ousmane Sonko bu diviser ay ay ay kiyam comment dirais-je ay député mun na am deux bu jëlee ay meeram bu dee mat na mun na am trois kan moo ciy tegu boo defee boo defu ndax Macky Sall jéem am lu mu may kii nga xam ne euh, même pur du dem fan lañ jaar pur amuñu député député yu mat yoo xam ne mun nañ mun na dugal pur déedéet affaire bu salte la def ñii ñëpp duñ dem bu fi def élection yoo xam ne même buñ ko fi seetaanee mu toog fi ay élection yu muy def mo ay nitam ñoo fay ne ay ñaari nitu ko mu dem dóori fële xëcc ak ñenn ñi mu jël leen may leen ay parrainage citoyen euh, euh, astafurlah parrainage des élus locaux mooy maire yi ñii mu may leen ay parrainage ci ay euh, député am organiser benn élection boo xam ni bii di ñëw moom moo koy choisir mais loolu lépp ñun dañ koy bàyyi mu mu mu mu déroulé plan am te jamono ji nekkul dañ kon dañuy xaar ba loolu am ñu dund ko mais ça jóg jot na de te fii bu yomb bi la nag bii musul am bii moo gën a yomb bu yomb